a jóg moom mooy dañoo seet ni président Macky sal gàcce ngalaama ci biir Sénégal gàcce ngalaama ci biir Afrique dafa liggéey ku gore ku ne balaa ngay dee na nga gën Macky dafa liggéey yàlla rek moo tax ma di ko wax ndax man aw ma tànk aw ma alal jooju waaye sénégalaise la à part entière moo war a contribuer ci émancipation Sénégal ci jàmm Sénégal ndax may jigéen di ndey di yaay donc gis koo xam ne président mat na président am na vision am na volonté politique pour defar Sénégal te tey ku dem Sénégal ku ñëw ci biir Sénégal soo demee Côte d'Ivoire wala euh, euh, Burkina Faso wala France wala Guinée-Bissau wala fee di nga xam ne Sénégal kat liggéey ne changement bu rëy am na. Macky Sall lu mu fekk li mu fekk mu nekk 10 yóbbu na ko 100 lu mu fekk 100 yóbbu na ko 300 yàlla laa koy seedeel Macky Sall gor la garmi la boole ci dara ak wax boole dara ak bruit gudd ak bëccëg opposition ñu ngi jël xeet di sànni ci euh, toolam di ko ŋàññi di ko saaga. di ko humilier di ko manque de respect te ñoo xam ne bu xëyee bu bu Sénégal la sol ba jant so lépp lu sénégalais bëgg moom la bëgg problème mu régler problème ki dañ koy gërëm ba pare dafa am taxawaay boo xam ne ñun jigéen dañ ko war a taxaw te Sénégal bu lakkee ñun ñoo ciy perte ndax suñ ñun ñooy sa njaboot yu ndaw mhm. ñooy yaay mhm. ñooy ñooy éduqué ñoo nekk ci bureau yi nekk ci tool nekk ci jardin yi ñoo yor xale yi doo xale yi te bu ñu demee xare ñi ciy dee ci nga xam ne moo leen koy yónni di ko puus dem leen xeex yi loolu ñun duñ ko seetaan. Mhm. dañ koy bañ ndax mag yi doo am moteur bu bees nga koy mëngal am moteur bu màgget. Mhm. nous sommes les précurseurs de la paix on prend la paix en tant que femme dañ ko war a def mhm. waaye di gërëm Macky sax bu taxawaayam ndax tey ku xool ci wàllu euh, énergie tey village boo commencé depuis Tamba de Gouloumbou à Diogué nga wàcc Kolda ba Sédhiou tous les villages tey ñu ngi am électrification rurale ndax Macky Sall ku seetaante Sénégal démb hôpitaux yi tey nga xool Sénégal fu mu toll mhm. boo ma hôpital yi nga xam ne de dernière cri dernière génération yi nga xam ne inauguré nañ leen mu ànd ak mesure d'accompagnement idoine ànd ak matériel dernier cri yoo xam ne tey ku bëgg a faju moom bu amoon cancer sax soxlaw dem France boo demee Touba gii tey 300 lits a hôpital boo xam ne matériel bu fa nekk tey mën nga faju Sénégal mu def ko Kédougou hôpital Amath Dansokho ngi nii di préparer inauguré hôpital euh, euh, Amath Tidiane Ba Sédhiou ñu ngi ko koy santé oh. te ku dem Casamance depuis 1950 de tali daggoon goudron yi 2 mètres tey ñu ngi am plus de 200 kilomètres goudron de route boo demee dans la région de Kolda ñu tey éducation bi fa mu ko fu muy éducation ci biir Sénégal gàcce ngalaama Macky Sall tey li ma def ci éducation kenn mu ko naataable ba pare nangoo échanger nangoo teg dialogue national di wax ak réew mi fa réew mi kilifa aada kilifa diine chefs religieux yi pour li jëmale Sénégal ci kanam moom rek moo ko nangoo mm-hmm. donc kooku war nañu koo seetaan ba pare. teg na ci euh, euh, euh, chef religieux yi soo xoolee tey Macky mu téye foyer yi dafa boole ñëpp boole bu def benn divisé wul pour régner mais dafa boole xoolee yi ak xel yi dafa boole ànd bi Macky Sénégal képp ku war a dëgg woon na pour ngeen échange pour ngeen wax kooku ku lal dialogue national bàyyiwul kenn kon kooku soo demee ba nga xam ne réew mi yëpp toog la def charte ne kaay la ñu signé un document de la paix pour jàmm am ci Sénégal yow nga seppi sa bu nga bañ nga ne doo si document de la paix xam bëgg ku bëggul mm-hmm. waay waay jàmm lañu bëgg suñu njaboot bi dañ leen bëgg a sauver xale yi dee ñu ñoo leen jur duñu seetaan kenn di dañu bëgg des élections libres transparentes mais apaisées avec la paix sociale parce que ñun ay jigéen nañu dañoo bëgg suñu doom yi am jàmm ñuy ñaan sénégalais yi ñu xool infrastructure routière li fa ma Macky Sall liggéey mag yi li mu def tey ci environnement li mu def ci agriculture bi agriculture commencé ba tey depuis maître Abdoulaye Wade masul am li fi dugg ci matériel mbay à tous les niveaux du tracteur du culture du moto motopompe du dara li mu def agriculture tey paysans yi barke démb maa ngi suivre télé ñuy naan kilo gerte deux cent cinquante te daa fi woon am baykat ñu jox la intrant jox la lépp pour nga mën a béy nga àllee lebal la ba boo mënee sa bopp nga fay ci Macky Sall lañ ko amee l'avènement de Macky Sall te dans l'employabilité des jeunes dans le chômage nga xam ne daf ko def priorité ci biir xolam te li mu def ci jeune te lu nekk ci jeune ci réew mi wax ma sa enseignement mille jeunes mais biir environnement biir hygiène biir santé li Macky Sall rekkatu kenn xamul mu toll moo ngi def li mu man kon gàcce ngalaama kon kooku soo ko dimbalu war a koo yàq soo bu ne nga toog la femme kii dallu Vélingara forlo wala kii dallu Wassadou wala kii dallu Ñanumba toog ci wetu kenn bi yore rajo opposition di sandi xeet di ŋàññe di wax ñu koy déglu ñu koy perturber ñu dañoo bëgg a nekk on di d'union dañoo bëgg a fédérer les forces la paix jël réew mi boole xool yi boole yi réew mi dal ndax réew mu amul jàmm mënul développé wu. ñoo ñuy perturbé di leen wax loo xam ne amul di yàq seen xel di leen teg na ñu wax leen dem ba ci ñoom def tournée national chaque département ñu dem fa wax leen Macky Sall mu ngi liggéey liggéey baa ngi ni woo ne ses réalisations porter le combat parce que ay jigéen lañu pour que jàmm am pour ñooñu ñu conscientiser leen xam ne tey li mu def ci biir santé gratuité des soins rek doy na. Mm-hmm. balaa ngay xam preuve nga daje koo xam ne jox na la bourse plus de 450 000 familles bu familiales dans l'étendue du Sénégal gàcce nga laa ma Macky Sall jigéen yooyu ñooy jënd ay nag tey jënd ay béy jënd ay xar ñu am économie am na ñoo xam ne ñu jënd ay lal te dañoo ci lii am paan ñu ngi tëdd lii am paan avec l'événement de Macky Sall ñu ngi sant yàlla sant Macky Sall mhm. kon nag maa ngi interpellé les Sénégalais di interpellé surtout la majorité présidentielle di interpellé les responsables les grands responsables de l'APR nañ nañ parce que ku def dara yi na Macky Sall la ndaw sax bu defee tamponné vélo ci mbedd la mm. fekk il n'est la dara borom kër la ñoo ko dënk suñu baat c'est gardien la constitution mais day nelaw day gëmmantu nit la borom kër la jaboot la yor humiliation yi doy na nañu bàyyi di prôné xeex mm-hmm. nañu prôné la quiétude nañu am sens élevé de la responsabilité mm-hmm. responsable de l'APR ñoo war a woote jàmm ginnaaw président buñu bu ñu yee benn fiti mu nit sax war nañu ko nangu parce que c'est qu'on va gagner largement parce que le pays là a des un bilan palpable visible kon xam naa ne dañuy gagné donc gagné boobu nag ku nekk na def programme def plan d'action def plan directeur wane li nga mën a fank manee waaye du xeex xale boo àndal bu jógee di xeex nga ne ko bàyyil xeex ma la xeex nañ jël xale yi dugal leen ci formation nañ jël xale yi dugal leen ci ci métier yi mais duñ jël xale yi dugal leen ci xeex ndax ku ay événement mois de mars yi gàcce la pour Sénégal c'était honte c'était ridicule à travers le monde Sénégal dëkk teraanga la à partir Sénégal nii seet Sénégal muy lakk pono di lakk police di xeex doomu nga de gàcce la woon c'était frustrant kenn mu ko supporté loolu ñu ngi ñaan yàlla borom subhanahu wa taala bu mu amata ci biir réew mi yal yàlla yàlla séddal suñu réew mi may ñaan nag ñépp nañ jàppale étudiants yi ñu ngi di toog ci salle bi nañu xam ne Macky Sall defal na leen dara augmentation bourse yi rek doy na augmentation bourse yi xale yi tey ku ne université xii fatu ji de xanaa nga de bëgguma lekk waaye ñoo ngi lekk ba suur ndax am naa doomu ñaar doomu étudiant ñu université ñu ne dañuy añ yaay bakke de buñu tëggee inde ginaar sax dañ day di université lañu nekk di lekk donc Macky Sall mu ngi def ay progrès yoo xam ne c'est vraiment palpable kon kooku jar naa mën a jàppale donc euh, waaw kon nag ma aussi interpeller la jeunesse mhm. mais interpeller leen une jeunesse consciente mhm. des intellectuels ñu bañ opposition di leen pousse ne dem leen xeex damaa bëgg a fal diw ils sont immatures ils n'ont pas d'ambition te réew mi toll na foo xam ne liggéey bi fi Senghor def liggéey bi fi Abdoulaye Wade def liggéey bi fi Abdou Diouf def ki ñoo def la double la triple duñ ko jox saay-saay boo xam tekkiwul dara mu yàqa dëkk bi koo xam ne amul benn expérience ñu jox la dëkk bi doo am boo koy yóbbee ndax Macky sax tey xiiful maroo nu muy développé Sénégal moo ko soxal loolu mooy tànkam loolu mooy noppam loolu mooy liggéey bu dëgg bëccëg te kilifa diine duñ ma weddi kilifa aada duñ ma weddi chef coutumier duñ ma weddi international bi nga xam ne moom moo jël combat Guinée ko Guinée Conakry Sénégal euh, Mali boole lépp yóbbu international di défendre di protéger di indi ay vaccin bi di ko may ay ñooñam kooku laa na biir ko président bu baax la sa Macky Sall ñi ñoo xam ne l'événement de la Gambie bu seetaanoon kon Gambie en cendre aujourd'hui mais il a pallié à tout cela mu taxaw ci ba nga xam ne jàmm dafa am te CEDEAO mën nañu wax ne tey ñu ngi jël Macky Sall def ko président en 2022 ñu wóolu ko ñu bëgg ko pour capacité am capacité am prôner la paix capacité am échange de défense ñu jël na ñun dañ koy dax mu dem. yaakaar waroo ñu wallare ñu ñu waroo ñu waroo ñu waroo ñu makki waroo yaakaar waroo